fidèle internetu Senaf Info tey ñu ngi ñëwaat euh, pour seq ak euh, waxtaan ak euh, koo xamante ne nii j'espère que duñu ko présenté ci tund Malicounda rawatina ci folof bi nga xam ne fa lay fekk baax mu nekk un grand responsable politique ñu gis ko ci ay manifestation monsieur le maire yu bari yoo xamante ne nii dañ ko ci gis muy ñëw avec démonstration de force mais Euh, j'espère que yooyu yëpp dañu wax ne doyul tey dañu bugg a seq ak moom waxtaan parce que am na yu bëri yoo bëri yoo xam ne bëgg nañu ko waxtaanee aussi mu leer ci boppu askan wi te moom rek moo ñu ci mën a dimbali tey nag ñu sàkku woon pour def ak moom waxtaan mu ba yàlla dogal mu nangul ñu ko ñu fas yeneen dugg ak moom tuut ci benn waxtaan mais tey mu ngi feggoog ay naataangoom yi nga xamante ne nii. Euh, ñoom la bokkal di yëngatu ci wàllu politique euh, di euh, Serigne Dame Ndiaye ki moom xam naa mos ngeen xam ngeen ko jot na fi jaar yàggul dara ci émission ak sëñ Khadim euh, mais avant tout dañ koy bàyyi moom mu nuyoo ak askan bi Ablaye ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah suñ lay ñu ngi lay nuyu di nuyu internautes yi nga xam ne ñooy seetaan seen info. Mm-hmm. ah di nuyu tamit. ñi nga xam ne ñoom laa àndal mm-hmm. di Dame Ndiaye ak mm-hmm. Khadim Fall mm-hmm. di nuyu tamit euh, ñi nga xam ne ñooy association defar gox bi mooy suma yitte Folox 3 di nuyu ñëpp bu ñu tuddee la président des le responsable des femmes Ami Touré mu yóbbaale jigéen ñëpp ak ñaar ñu ñu àndal ñu yóbbaale góor ñëpp ndax bu ñu leen naree lim du fi xaj waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ma élire ma nekk seen kanam nekk seen responsable. Mm-hmm. ci defar gox bi mooy suñu yitte maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Folox 3 yëpp. Mm-hmm. ci defar gox bi boobu lay tàmbalee waxtaan bi. Mm-hmm. da ngay defar gox bi wala da ngay yàq gox bi parce que ñun daal bëri na information yi ñu dégg association defar gox bi euh, tur bi nekk na lu rafet mais dañuy for ci wéy béy ne association bi. nekkul uniquement pour defar euh, jàppale monsieur la maire am na sax ñu wax ne da ngay gor ay tànkam parce que yow cent pour cent pur nga waaw su lay bu ñu bëggee wax ci defar gox bi hmm. eh, lan moo ko tax a jóg hmm. dañuy xaw a arrière tuuti hmm. pour nit ñi mën a comprendre ñu baal ma nag bariwul sax lu may def lu mel nii léeg-léeg sax ñu def ay sorties yi amee ah, ñun ñoo ko sàkk woon ah, pour a que bëggoon nañ leer waaw ok ba laal ma mais xam nga aussi bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne résultat moo la ñor. Mhm. su bëggee di nekk di tontuwante. Mhm. doo mën a dem te du sotti. Mhm. donc loolu bokkoon na ci li taxoon dama doon siifur li ma gëm sama kanam rek bañ a tontu kenn. mais des fois tamit boo noppee ba ëpp. mu am lu mu jur. moo tax yenn leeral comme ni nga ko sàkkoo mënta ñàkk. waaye defar gox bi. Euh, matagul 3 mois sax association bi. te xëy na li mu jëngal bari na. mais ñu fàtte ñu fàtte bu ñu fàtte ne defar gox bi. Mhm. fekkoon nañu aussi ñuy ànd. Mhm. amoon weneen tur. Mhm. ñu ko doon tuddee gëm sa bopp. xam nga su lay ñun. bu ñu bëggee arrière tuuti pour nit ñi mën a comprendre defar gox bi ñun. ñu jëkki rek am ambition ci politique dugg ci. walla ñu mu nekk lu ñu doon. non ñun ay doomu daara lañ. cest à li ñu dugal ci politique mooy fa ñu dëkkoon may dëkk yow. ñoo fa bokkoon nekk xam nga situation bi na mu demee woon duñ ci ñëwaat muy gën a gudd. dëgg la donc pour génnoon ci situation boobu. Mhm. ñu gis ne il faut ñu participer ci politique bi am. Mhm. en 2013. Mhm. la dam tàmbale loolu moo waroon ñu participer ci politique bi. pour génn ci situation boobu. dëgg la bi ñu demee ba génn ci situation boobu. yàlla def ka fa nekkoon di ko gisuñu woon ni mën nañoo lotissé mm-hmm. ba en 2013 tax ñi àndoon ak monsieur le seen jàppale ko ba mu jot commune bi mm-hmm. monsieur le maire Maguette def la mu waxantoon ak ñu def ba def lu ko war mm-hmm. lépp ca quartier ba xam nga doxin bu rafet moo tax ñu nekkoon ci ba léegi ndax yàlla dafa doxoon ñu liggéeyoon ci liggéey bu rëy ci lotissement bi donc ak ak ña ñu ko àndaloon booba ñu ngi nekkoon ci benn association bu ñu wooyee gëm sa bopp yàlla daf ñu ànd ak màgget seen gagné mairie bi liggéey liggéey bu rafet ñu dem ñu dem dëkk fi ñuy wax xel xom de màgget seen tey. Mhm. boo seetloo en 2016 bi ñu fa yóbboo ba léegi. waaw ñu ngi fa nekk ci ay coow politique. Mhm. tey ñu ngi ci lii suba mu nga ca mais mënoo ci génne loo xamante ni résultat la boo xamante ni def nañ ko ci diggante 2016 ba léegi. Mhm. loolu ay coow ay xëccoo maire màgget seen daal mooy jóg. am ambition am ci dëkk bi jékki-jékki ne indi naa leen ndox ñu jóg topp ko yóbbu muy ni ndox ñu bàyyi mu demaat. Hmm. jékki-jékki am ambition am ñëw ne indil naa leen courant ñu ànd kook moom mu pare jeex. Hmm. jékki am ambition am indi naa leen école ñu jóg yóbbu ko mu dem jeex. mais un responsable dëkk bi yoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk jog organisé wu. Hmm. def loo xam ne day jëriñ dëkk bi. non man gisuma ko te maa nga ca woon ci laa bokkoon. dem nañ ba yenn moment yi sax ñu gis ni dëkk bi nu mu bëree ay groupe groupe. pour pourquoi mënuñoo boole groupe yëpp ci politique ñu def ko benn groupe tuddee ko les coordination xalaat boobu mujj nañ ko am def ko mais bi ñu ko defee ndekete dafa gën a yokkaat problème bi ok donc teewut ñu nekk ci cordination bi liggéey ci liggéey bu rëy mais bi ñu demee coordination bi dem gi jafe dem gi jafe ba am na sax ay opposants yu juddu mujj di opposé monsieur le monsieur le maire Maguette Sène te moo ko indi woon hmm. kon ba tey liñ bëgg amaguñ ko ci dëkk bi donc foofu lañ jaar bi ñuy nekk ci coordination bi <coughs> yàlla def nag man ci lu ma ne hmm. toujours damay xalaat la ma ca war ma di ko def hmm. doon naa ko def ci coordination bi bi ñu demee ba yëg ni coordination tamit li ñuy bëgg ci côté organisation ak côté doxalin du ko mën def te xool nañ ba xool de xam ne du ko def du ko mën def moo tax ñu jóg dellu si waat sur les bases. Mhm. parce que ci ay comité lañ nekkoon. Mhm. ci comité lañ jógee woon dem participer ci coordination. Mhm. bàyyi suñu base bi ñu nee ba coordination gis ne li ñu bëgg ci politique ak suñu ambition fa mu jëm ci politique mënuñ ko am ci coordination bi ñuy bàyyi coordination bi démissionné ci delluwaat suñu base. ci ngeen créé loolu. ci ngeen créé loolu delluwaat suñu base. defar gox bi defar gox bi. bi ñu delluwaatee suñu base ñu créé ñu xam ne bu ñu ñëwee pour demee waat. tur wa gëm sa bopp du sotti. Mm-hmm. parce que day bari lu mu yàq. Mm-hmm. ci ngeen indee tur boobu. ci lañ daal di taxaw définir benn tur génn ko muy defar gox bi mooy sunu yitte. en tout cas ni nga ko jotee expliqué nii. Mm-hmm. nekk euh, man mu ngi doog a leer ci samay ci samay nopp. Euh, maanaam su fekkee ne comprendre naa baax. mooy mm, comme ni nga ko waxee monsieur le maire euh, dëkk bi day ittewoo dara wàllu ndox mu ñëw taxaw ci responsable yi félicité ko. wàllu courant bi tamit naka noonu. mais amul benn responsable boo xam ne nii mu ngi créer maanaam ay jéego yoo xam ne nii mën na suqali gox bi mm-hmm. euh, ci yéen ci ngeen del toog ginnaaw ne na ngeen xalaat crée loo xamante ne nii bu ngeen ko sampee dina nekk njëriñu dëkk bi mm-hmm. ñu gisagum ci maanaam jéego bi nga xamante ne nii euh, euh, récemment man ñu naa fa couvrir fa benn programme mm-hmm. muy financement boobu nga xam ne yaa ngi ko génne woon def ko defal ko famille xanaa ci côté bu mel noonu ngay wax maanaam responsable yi def ay jéego jàppale askan wi ci côté social beeg yooyu côté boobu ngay wax wala. c'est ça Souley gis nga bala may ñëw sax ci financement boobu. Mhm. damay arrière tuuti duggaat ci coordination bi. Mhm. selon bu ma ci nekkee ak fonction bu ma ci doon def. Mhm. ma mën ko wax. te ña ci dëkk ba mën ko teewee. pour ñu xam ne. joguñu génn pour yàq coordination joguñu génn pour. pour gàllankoor monsieur le maire Maguette Sène mais dañoo jóg pour génn gëm ni dañoo war a liggéey dañoo war a am programme parce que ci biir coordination bi li ma lay wax ni ci biir année bi dong laa ko ci laa ko def ci biir coordination bi année 2021 bi ñu nekk mm-hmm. ndax euh, boo rappelé woo tuuti am na benn final buñ tuddee woon monsieur le seen Maguette Sène mm-hmm. bi ñu ko koy tuddee ci école yi lañ ko fubalee woon foofu boobu amaguñu woon terrain mm-hmm. ASC bi moo ko organisé woon gis nga dama dox rek ci mbedd mi gis ASC bi mel ni dañu pare pour patronner keneen. Hmm. seen final bi ma ne waaw. pourquoi mu leen ko patronner maire Maguette seen ñi ni parce que mënuñ jot ci moom man leen def leen ma confiance ñu d'accord ci loolu samay activité te boobu maa ngi ci biir coordination laa lay expliqué ma fexe ba jot monsieur le maire Maguette Sène par téléphone mu accordeel ma ne moom dina nangu ñu tuddee ko final bi mais du mën a ñëw dina yónnee ma wax ko ASC bi. ASC bi mais ñun defar nañ suñu carte ba pare may leen ñaata la ñu ne ma 20 000 je crois ñu wax ma montant bi xamatuma ma génne montant bi jox leen ñu xotti carte yooyu te pourtant parrainé woon nañ ko keneen ba pare. ñu parrainé ko maire Maguette Sène maire Maguette Sène def ci lu rëy jox leen ay moyens jox leen ay bal pare après final bi mu recevoir leen bi mu leen recevoir ci la ma envoyé benn building ma bale terrain bi terrain bi génn. lépp ci sa biir nekk. lépp ci biir coordination bi. période bi ñu fa nekk muy. man maa ànd ak ñoom ba ci monsieur le maire maire jox leen terrain bi terrain bi génn bi ma koy bale ak ak building bi man kenn maa fa nekk deux jours laa fa def ci deuxième jour ba la benn responsable ñaar responsable ñoo doxantu fa xool ba gis may dem mais man kenn maa fa nekk ci koor gi di fa nekk ba 4 heures man ak building seul benn responsable bu nekk xel xoom cité Maguette Sène. te loolu bi ñu ci jógee ci biir coordination bi ñu ci jógee. Mhm. fekk maire da leen waxoon da leen di envoyé ay poto mhm. poto yi xaw a yéex man toujours su ma doxee ci koñ bi dégg fu ñu bëgg a gàkkal maire Maguette Sène rek bu ma ko mënee dindi dama koy dindi sa bu dee sama temps dama ko cay def dee sama poste dama ko cay def mhm. ma dégg ay rumeur ci camp yi ni mu yéexee woon ak nu mu yàggee ba ñu ngi ci xool beneen pexe bu ñu mën def ba am camp ma xam ne du rafet ci mission bi ñu nekk ak monsieur le maire Maguette Sène automatiquement laa génne sama xaalis jox ko daam na leen ñaata koy liggéey ñu ni montant bi 200000 ma jox daam sama xaalis ne ko demal nga jox leen bi ma paree dama envoyé mère Maguette seen sama message sama téléphone ne ko joxe naa xaalis ci sa tur xaalisu camp yi laata muy am mu koy suivre ci donc dina ko suivre laata ñuy moom xam na li may wax donc ci biir semaine ba balaa semaine bi jeex lañ da ko jox dajee mu delloo ma sama xaalis macha allah donc loolu lépp ci bëgg a defar ci bëgg a defar mhm. biñ ci jógee suñu mbokk yi daam mi moom benn bàyyi la ci benn association bu ñu tuddee bokk xalaat mhm. organisé nañ fa benn monument pour defal ko magget seen parce que dañu gis ne fa mu ñu jëlee ak fu mu ñu indi ak ni mu mel jar na ñu defal ko fi benn rëms boo xam ne wax dëgg yàlla kenn du ko fàtte suñu doom bu ñëwee dañu xam ne kat Maguette seen moo ñu indi fii mais loolu bi ñu koy créé pourtant xalaat bu baax la gis nga bi ñu defee création bi man maa nekk benn responsable Xelcom boo xamante ni maa jógoon jàpp ci loolu ñuy tuddee Maguette seen ba mu taxaw mhm. ñoom ñi mën nañ ma seede jël sama oto di ànd ak ñoom jël samay moyens def ci ba loolu egg ba maire Maguette Sène ñëw énigré ko keneen bi ñu koy énigré bi ñuy lim responsable si jàpp mu mënuñu lim man responsable bu man responsable yëpp nga fa woon bi ñu koy énigré bi ñu ci jógee. loolu yëpp ba tey yaa ba tey maa ngi ci biir coordination bi bi ci jógee ñu ñëw ci war a investir Maguette Sène ci lu yàggul dara pour mu nekk jëlaat nekkaat ci suñu kanam ci élection yi ñu jëm. nekkaat candidat waaw. gis nga foofu. Hmm. keroog am nañ jafe-jafe ci biir. ci biir base bi ndax ci réseau de femmes yi dañuy jot ay hôtesse bi ñu jotee ay hôtesse la responsable des femmes bi fi nekk bu xamal ma ne ma jot nañ hôtesse mais hôtesse si doyul ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko dinaa ci jàpp man maa yëg sama xaalis jox ko bi ñu calculer li ma leen jox ci xaalis bi ñu ko daggee 60 mbubb la hôtesse yoo xam ne man maa ko dagg macha bi baas bi génnee ñu envoyé ñi trois quarts mu génn ma ne ma laajaat beneen quart ñu ne mënuñu envoyé beneen quart mu yëkkatiwaat sama xaalis fayaat beneen quart fekk boobu ñun génne nañ quatre quarts ci soirée boobu. donc mu nekk ay activités yoo xam ne da koy dama ko waroon def ci biir coordination bi di ko def ci turu ñëpp. su amee keneen tamit ku fa nekk koo xam ne mi ngi doon def taxawaay yooyu ci biir coordination bi na ko mën na ko wax après ñu dégg mais gaw ma ne am na parce que su ma gisoon rek wax ko kenn ci ñoom. en tout cas jéego kenn laa fa gis a xayma a lim noonu laa fa mu def fa taxawaay bi. te à euh. chaque fois dama koy wax. Hmm. muy Cheikh Gueye. Hmm. keroog bi ñu waree collecter école bi xaalis bi am retard mu génne 450000 sama kanam dem jënd sima pour liggéey ba ñu am retard. xaalisam loolu def na ko sama kanam en chaque fois dama koy wax parce que man ku liggéey awma soxor pour wax ko bi ñuy intégré courant bi mhm. bi ñu demee ba li ñu meer yónnee woon jeex bi ñu dem ak suñ moyen bopp maa ci rawoon parce que man la deesee woo ne ma courant bi day wàcc te xaalis jeex na ma jël sama xaalis jox lay asan jàll ñu wàcce courant bi maa taal sama oto xam ne gan yi meer war a am fii dañ leen war a teral ñu leen di jëndal ay boisson VIP bi ma ne kenn du ko jënd taal sama oto dem marché jëndi fa ay yi ñëw jox leen ci biir coordination maanaam politique mënoo ci nekk te sa poste du génn. dëgg la te doo wu. dëgg la te nga wax ni responsable. non non non non non lii moom. sacrifice gis nga gis nga activité yooyu. Uh-huh. ci laa doon manipuler leen loolu laa mos di liggéey ci biir coordination bi. Hmm. di ci dox di ci dox di ci dox xoolal coordination bi gis nga maire Maguette Sène bi mu njëkkee commencé campagne am. Hmm. wala commencé régler baasam pour waajal élection yi. Hmm. première réunion mi ngi ko defee Kër Waale. deuxième su ma juumul kokaay la ko defee. xam nga bu ñëwee lan lay clôturer réunion hmm. mooy dellu leen ci seen baas yi ngeen woowaat seen njaboot yi ngeen waxtaan ñu waajal fi ñu jëm booba coordination baa ngi ci crise bu métti kenn ñëmata woote réunion man maa woote réunion ñoom ñëpp ñu ñëw wuy suma suma kër keroog daam mi ñëwoon na ci réunion bi hmm. may leen nañu defaraat ànd bi ndax fa ñu jëm maire woote na te wax nañu defaraat ànd bi hmm. keroog galoje ci boppam bi ñu génnee daf ma jox loxo ne ma maa ngi lay félicité parce que crise bi coordination bi nekkee woon moment yi boo woote loon réunion kenn du woote ma del defaat deuxième réunion bi kër Cheikh Gueye rien rek comme ñoom dañoo boyoon côté coordination bi ma jël réunion bi def ko seen kër ak Cheikh Gueye responsable de femme ak responsable de femme ak Ibrahima Diaw ñi ma àndal rien pour ñu mën a gën a joxante loxo ak coordination ma dem ba samay activité yooyu gisuma lu mu mën a jëriñ. lu mu la apporter maanaam gisuma lu mu mën a apporter ci coordination bi loolu rek da nga cay nekk def sacrifice te te te noonu lañ lay xeexee ci suuf. <laughs> su maire day ñëw duñu doo bokk ci discours yi de. ak ak ak ak sacrifice boobu ngay def ci coordination maire dañu ñëw dañu lay xeex ci kanamu maire. ba doo jël parole. duñ la boole ci orateur yi ma dem ba xam ne man sama ambition fi mu fi mu jëm ak sama xalaat ak ni ma miinee programme ak ni ma koy véhiculer ni ma ko gëmee non coordination bi lu may baarale ci politique moo tax ma koy waxaat encore une fois dama ci démissionné dinaa ci ñëwaat mu gën a leer. te bi ma ci démissionné dama ne leen. Mm-hmm. non raison yi sax lu ci bari wax nga ko. c'est ça dama ne leen <laughs> xeexuma leen ña ko gëm nañ ca nekk. dinaa def defi la ma gëm. macha allah ña ca des comprendre naa leen ci mais dinaa dem defi leneen. ma ñëw nag def lépp lu ma gëm ci politique léegi ma koy def ci turu defar gox bi. Hmm. donc foofu lañ commencé. Hmm. di manipuler defar gox bi yaakaar naa cinq mille yi nga tudd. Hmm. yàggoon naa xalaat loolu nan laa koy defee boobu ci coordination bi sax. ci turu coordination mais boobu xat-xatu coordination bi ak jafe-jafe yi moo taxoon ñu mujj rek génn xool suñu yoonu bopp. ba dox ba yeg si fii ah xam nga defar gox bi. Hmm. buñ nee day xeex monsieur le maire Maguette Sène. yow pur nga. wala pur la wala wala xam nga nee nañ da ngay mu affaire gi rek mais pur moo nekk ci sa xol. pur moom du ma bëgg sax euh, di ko tudd parce que dañoo nekk samay jege ñaare samay mbokk yoo xam ne xam nga pur. Uh-huh. booy xool ci élection présidentielle yi. Hmm. bi ma demee ba nga xam ni. Hmm. man toujours. bu may ànd ak ay nit damay ànd ak ñoom ci sër yi. Mhm. duma leen bëgg a mhm. bi ma demee ba nga xam ne ñu ngi nii ñoom mën nañ maa seede. Mhm. ma demee ba nga xam ne parce que ñoom ñoom du ñu ay du ñu waa piir ñoom Maguette Sène lañ xam. moo leen may kër indi leen ndox indi leen courant te ñoo ma jiital. te man bañ may jiital booba loolu dafa jiitoon. bi ma demee ba élection présidentielle ma xam ne man bu ma nekkee seen kanam dama leen di sonal dama leen a xamal ba ci kanam maire ma ne ko maire association bu mag laa àndaloon ba nga gañe te tey ñëpp na leen piir laa mën naa leen a sonal mën naa leen a gàllankoor jël leen nga xool ko leen boole ñu liggéey mën nag du ma la yàqal dara mais tamit mënatuma laa liggéeyal dara pour le moment ci élection présidentielle dem nekk ca la ma nekk ñoom jël nañ kenn teg ko seen kanam laaj leen après ndax doxaloon na wala de ñu ngi ni donc li tax ma dellusiwaat donc dafa bokkoon tamit ñoom ci li leen intéressé donc looloo waral ñu ñëwaat donc suñ nee nag defar gox bi dafa jóg pour xeex Maguette Sène loolu wax naa ci ak Maguette Sène te aussi nañ xool ci réalisation yi ni muy doxalee ba ci meeting bi passé Malicounda séeréer yàggul dara. foofu laa bëggoon ñëw parce que bi ñuy wax bi ñuy dégg bi ñuy laam-laamee ne maanaam. gox bi nekkul kuréel goo xam ne bu wér la mhm. dafa am ay ay ay ndëgg sërxal yu nekk ci suuf yoo xamante ne yéen a ngi koy préparé mhm. bu élection yi demee ba jub si xëy na après ci la masque yi di génn mhm. masque yi ñu muur woon ci lay muureeku maanaam ci la ñuy xam ne kii kat xëy na mën na fësal ma monsieur le maire dem ba ci suuf mu liggéey ak pire au niveau local donc mais après ñu gis ci euh, ci ci ci ci ci ci mitinu Malicounda Séeréer bi nga def démonstration de force def une forte mobilisation ak Euh, sa frère bi nekk Kër ma Mambay euh, Émile Touré. Mhm. donc loolu xëy na peut-être euh, am na lu mu lu mu xaw a dindi mais est-ce que. Mhm. Ablaye Gueye loolu li gars yi di wax loolu mooy li am maanaam est-ce que nekkul da ngay affiché ma màgget ñu dem ba ci njeexital bi nga dem nga dem yëkkal affaire bi waa PUR te PUR opposition bi la. <laughs> ah loolu mais xam nga màgget ba ñu àndee dafa yàgg. Uh-huh. donc dañ ñu jaxase nag. Mm-hmm. dañ ñu jaxase te responsable politique yi. donc booy def lu ñu mënul rek pour ñu sa la du yomb. dëgg la gis nga pire euh, nu ñu koy waxee defar gox bi moment yi may wax ak yow nii. Mhm. mooy association bi ëpp mbooloo xel xom si dem ak Gersen. c'est parce que di muy doxalee la. waaw gisaat nañ ko tey ci match de football bi. match de football bi sax dinaa ci ñëw ci fin bi ndax dafa am lu ñu gàllankoor ba mujj demee noonu. Mhm. Euh, pi te te loo ci xamul mooy mobilisation bi duñ ci sonn te gars yi dañuy engagé wu mu jaral leen lu ne pour defar gox sànq bi may ñëw xoolal minuit jot na mais kii bi ma ko wooyee xam nga lu ma wax dafa ne ko nañ dem def benn émission dafa ne ma kooku de jóg dem rek te fekk na mu ngi tëdd. ndeysaan ak njabootam. ak njabootam. Hmm. la même chose boo leen fi mu toll mu leen fëggoon li dàq ci politique la am mooy am base sa ginnaaw bu la nangul boo xamante ni heure bu leen fëggee ñu jóg. macha allah te tey xam nañ ma ci sérieux goo xam ne su ma wanoon maire Maguette seen gannaaw question bi sax ñoom duñ ko interpréter parce que xam nañ ne du ma leen fen du ma dox ci ay caaxaan. yi ci des nag say adversaire politique yi ñëw ci dëkk bi ngay def loo mënul duñ jóg ci jël a gasal kàmb say adversaire yi nga bokkal même camp bi même camp bi même parti ngay def lu ñu mënul <laughs> duñ jóg ci di la gasal kàmb loolu kese kese kese moo indi yeneen ni du leneen te maire bi ñu dajee euh, dajee bu mujj bu ñu mujjee def mhm. dama ne ko nii ma fas yéene jógee di ko doxee ci politique daam mi ngi fa woon mhm. xaadim mii mi ngi fa woon dama ne ko ni ma fas yéene doxee ci politique mhm. ak ni ma ci doon doxee xam nga lu muy jur ca ñi nga xamante ni mënuñu ko ne ca dëkk ba lu ñuy mujj di wax mooy gëmut la piir lay xeex may sa may sa koy préparé maa ngi ko ci masow sax ndax moom li mu ciy non mais gars yi gars yi la ñuy wax li nga nekk gorom moo tax parfois c'est ça mais rek <laughs> <laughs> lenn rek moo ci intéressé uh-huh. mooy naa xaar ba màggee gëm ko te loolu laa ko waxoon aussi ci bureau mm-hmm. parce que ñoom point boobu moo leen dese mm-hmm. mooy laay gay gëmut li muy liggéeyal maire. Mm. lu mu mën a liggéey ëllëg biir la ko jëmee. laay géey may saa koy préparé may sa tey ñun ñëpp xam nañ ne quatre-vingt-dix pour cent des cent pour cent des magasins mais may sa da ciy apprécié. dëgg la kon daanaka kuy liggéeyal may sa tey magasin ngay liggéeyal. mooy wax jooju dama ko bëgg a collecté ne la ku ne responsable boo bokkal kan ci dëkk. kon loolu jot na ci waxtaan ak màgget. jot nga ko non bien sûr. Mm. defar gox bi. ginnaaw bu mu sampoo. mag dañu ma defar gox bi maanaam accusation yi gars yi di wax yooyu yëpp ci yow. non ni ma ci waxtaanoon ak maire dafa am suñ benn femme boo xam ne dama ko yóbbuwoon ci maire ñu waxtaan pour liggéey bi ñu demee ñu am délégation dix personnes boobu xam naa fi ma jëm. Hmm. mais après dama expliqué maire ne ko fi ma jëm. Hmm. ñamay gàllankoor loolu la ñuy jël comme baat ñaar. Hmm. may sa la wala pire la jëm ëllëg ak lu mën a mu ne ko loolu. bis bu ko màgget gëmee rek man boobu ma intéressé parce que man gëm naa ni màgget gëmul loolu te waruma loolu. doxut ci loolu tamit. Mm-hmm. parce que ñoom man gisuma fenn foo xamante ni Maguette seen manqué nañu fa ñun respect ci parti bi wala di wane ne ñun gëmuñu ko. Mm-hmm. kon ñi nga xam ne ñoo koy tudd ci mbedd mi di ko gëm damay jàpp ne seen ñàkk mën moo waral loolu. Mm-hmm. donc nañu dem xalaat kon kay loolu waratul la métti. non non méttiwu ma sax. ah d'accord méttiwu sax cest dafa nekkoon question yoo xam ne il faut ñu leeral ko loolu comme yow dem nga ba xam ne peut-être ñàkk mën gi moo waral loolu peut yi ngay def yu am solo parce que tey émission bi bëri na ci yu bëri yoo xam ne man mi mhm. dëkk naa fa waaye tey maanaam mu ngi doog a leer ci sama bopp c'est ça ay jéego yi nga xam ne yu bëri nga def ci biir euh, euh, coordination bi mhm. muy taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar nag ci responsable parce que responsable duul ne man bu waa ñëwee ñu engagé wala ñu génne nit ñu ñu mobiliser mobiliser nit ñi li waa ji di def ci kaw yow mi nekk à la base noonu nga war a taxawoo askan bi ci say maigre revenu mhm. say revenu yi ngay am nga di ko partagé waat ak population bi euh, te yooyu yëpp tey man mën naa ne xëy na ci laa ko xamee mais ñu jàll ci investiture yi mooy ma tuuti sax foofu ci coordination bi gis nga coordination hmm. benn programme rek la ñu mën a taxawal ci dëkk bi ànd ci ñoom coordination bi mooy xeex Ablaye Gueye <laughs> ñoom ñu taxaw ànd ci mhm. benn programme boo xam ne mën nañ koo taxawal ànd ci booy xool yow seetaan nga fan yii ci presse bi suñu la treize bi tiset bi kii sol mais lan moo ko indiwoon dañu waxtaan ak maire pour pour defal ko benn rendre hommage sargal pour le treize ba mu jox ñu ci pour pourtant loolu ñu ngi ci doon waxtaan ak maire jamonoy màggal Touba mais bi ñu ko maire nangulee date boobu ñu defaat lu mat quinze jours pour waxtaan ci pour affaire programme bi pour def bilan beeg lépp teg keroog bi ñu demee ba déggoo ba ma xëy jël message yi envoyé ko ci groupe APR Folox bi xam ne ñun am nañ datu le 13. Mm. organisation fii lañ ci toll ñii lay doxee ba commandé suñuy tiset tiset yii loolu tax mu génnoon pour sargal maire. Mm. la ñu jóg ñoom ànd ñoom ànd def benn point de presse wax ni waaw euh, du ñu seetaan benn mouvement di fi sargal ci dëkk bi monsieur le maire Maguette Sèye tur lay amee mais coordination mooy la ci dëkk coordination mooy lu ñu ànd d' ci rek. Mm-hmm. buñ ci d' amatul. Mm-hmm. mais président sax da koy topp ba mu neex la nga xëy jaar fanaan. Hmm. mais lu tax nit ñi moo ñu xam ne coordination ba ci sax suñu leader yi damaa dem ba xam ne ñoom bu ñu woowee réunion sax xam nañ ne ñun ànduñu ci cordination te bu ñuy wax coordination la ñuy tudd du ñu tudd ñun. rien que da ngay dem ba xam ne kii sës bi mu toog pour boot ñëpp c' mal placé day xam ci dëkk gi nekk mais c' mal placé pour ñëw ci dëkk bi xool kenn rek jox ko légitimité ba mu jeex foofu xam nga xam nga xam nga lan mooy solution bi yow yaay xam sa responsabilité nga jël ko. dëgg donc man foofu laa toll. dëgg la donc ñu def li ñu war a def lépp ci le treize bi. Hmm. ñoom ba ñu waxee loolu bi ñu demee wuy ji benn réunion kër mu monsieur le maire Pape Maïssa. Hmm. ñu nangu benn kàddu ci Buri Diouf foofu tamit dañ ko faa wax. Hmm. dañ ne du ñu nangu benn moment di fa def programme te coordination bi àndu ci Buri Diouf moo jël kàddu nii. du ñu wàcc ci dëkk di fa def programme fekk responsable bi ànduñ ci ñun fa lañ teg ko ci suuf. mais ba léegi kenn déggul ñu wax ci parce que dañ ciy xaar maire te maire du ci wax man nag sama liggéey du ma ci xaar maire dama cay nekk maire fekk ma ca moo tax te gis nga loolu tournée boobu lu ma metti la ñu koy waajalaat def ko ci beneen façon boo xamante ni dañ koy def façon balaa élection daañu def lu rëy ci xel comme cité Maguette Sène xam nga lu tax mm-hmm. mooy jot nañ fay sono xaaj bi parce que dañoo waxaale ak sono dem fay ko daam mii ñoo ànd kër ci pipa yow yaa ñu boole ak moom mm-hmm. mu war ñu defal ñu yëg ba ca kaw ñuy waxtaan ak moom séq ak moom la séq ak moom commandé cinquante tiset dem ba waa ji defar ci 20 tiset le treize bi pour lan te pourtant ñoom nee nañu Maguette seen la ñuy liggéeyal man nee naa leen ñoom bu ñu organisé sargal ma dem fekk leen ca ñu ànd ko ba mu rafet pour Maguette seen am ndam mm. donc bi biñ ko organisé ñun pourquoi ñoom ñu ne doom ma am ci ay firnde ne amuñu benn point bu buñ mën a dajee ñoom ànd ca juboo ca burul ànd xeex Ablaye Gueye amuñu ko. xam nga lu tax xam nga lu tax. démb démb xam nga lu tax démb dañ nañu dem leen ngeen xool quatre personnes. ngeen tànn ko ñaar ñu góor ak ñaari ñu jigéen noonu la coordination wax indi leen pour pour pour liste investiture bi. Hmm. ba ñu dajee ñoom ñoo kenn ku ne sa bopp nga tànn. yow. bañ ba mat 18 personnes. non man bokkuma ci liste yi. loolu loolu loolu mënoo cee mais loolu loolu mënoo cee dugg maanaam man sulee li may gis nii non grandeur bi may doxee sax ñu bëri mënuñu ko xam man du ma dugg ci lu ñàkk fayda lu am pëcc xool loo xamante ni kenn mënu koo rek parce que man dama toog analyse sa bopp après conseil mooy lan ma jëlaat beneen bi ban cër la conseil am ci commune bi te man amuma ko gisuma ko kon lu tax may xëccoo conseil la ma xool ci ma xool ci ñi ma àndal man man man man dama koy faral di wax mën nga bañ a nekk conseil municipal di liggéey rôle boo xamante ne conseil sax liggéeyu mmh. Mmh. Mmh. parce que soo nekkee tey conseil municipal taxaw bi nga war a taxaw gox bi doo ko def doo ko def nga gis koo xam ne c'est responsable ah di taxaw gox bi taxaw boo xamante ne rôle bi conseil moo ko waroon def mais gis nañ ko fii euh, ci commune Malicounda kon kon waxuma nag sànniwuma xeer conseil mais damay gis euh, des fois nga gis ay dëkk ay responsable am fa taxawaay bu bu boo xam ne nii taxawaayu monsieur le maire la kon kooku tey jii mu ngi joué rôle mu nga fay moo fay màgget seet te pourtant du conseil municipal loolu lu ko gën a am solo euh, amul tey buggu bugguma cité mu mel ne damay def publicité wala dara mm-hmm. mais tey jii am ngay dëkk yoo xam ne dañ fay fekk ay responsable yoo xam ni mais lu askan wi soxla ñu ñu defal leen ko toujours ñu seen itte moom mooy askan wi te pourtant duñu ay conseil municipal mais tamit askan wi ñu ngi leen koy delloo ndax heure bu ñu wootee ñu génn. c'est loolu lu ko gën a neex. loolu la ko quoi loolu moo ëpp foofu conseil municipal c'est vrai loolu moo ëpp conseil te bu fekkee ne euh, euh, monsieur le maire xam na ne carrément diw mi askan wi jox nañ ko bu wax dëgg yàlla loo ko wax dana la ko defal. loo ko wax ci sa dëkk ne nangam ak nangam bi dëkk bi itteewoo ko na ko dina ko dina ci tax parce que tamit euh, politique bu ñuy wax aussi base la mais base bi tamit li nga leen di téye mooy tamit nga taxawu leen. donc côté boobu laa bëggoon wax rek nit ñi ñu ngi misé wu ci conseil municipal mais wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne bëgguñu ko même ci côté opposition bi gis naa ko xam ne ne carrément bu ma kenn dugal euh, conseiller pour ma nekk conseiller. bien mhm. sûr donc. Euh, parce que foofu su lee. Uh-huh. li ma la wax sànq. Mhm. dama bëgg nga dégluwaat ko bu baax. Uh-huh. dama ne la. Mhm. benn programme bu ñu mën a taxawal ànd. pour ànd xeex. <laughs> xam nga démb damaa waaru bi ñu toogee. kenn ku ne nga génne tànn sa bopp bañ ma xaw ma 18 xaw ma set man ma génne ñaar leen jël leen ci ñi ma àndal du leen ci ñi dem le responsable des fem Ami Touré xoolal bi ñu nekkee bay bay dëkk ba léegi te dama xool ko ci jikkoom hmm. te dama ko tànn ci li tax ñi ñu tànn nit hmm. dama ko xool ci jikkoom xool ko ci oyofam mais xool ko ci jox bopp bu ko jigéen jox bopp nga xam ne keroog bu ma defee rek carte membre yi 150 carte membre ma jaay ko ci benn jour macha allah bi ma ko joxee 500000 ci liggéey pour seen premier versement rek 500000 dugal na kële 50000 25 kii 250000 dugal 25000 ci benn mois. Hmm. donc bu liggéey liggéey c'est ça Ami Touré nekk Ami nag nekk gérer leen loolu nekk koo xamante ni li ñuy wër wër ci responsable yëpp bu ñu koy wër ñoom ñi nga fa xamante ne xam nañ ne depuis 2013 ba léegi te nag depuis 2013 ba léegi ma wax la ko. dañ ñuy gis ñuy jàmbar jàmbar ci parti bi cër bu ñëw def ñuy teg. <laughs> ah monsieur le maire. non ñun non non attends ñun yow mi bi dégg. non non ñun le message ñun man boog ak ñu ma mos a àndal. Hmm. bu gudd ñëwee dañuy teg. bu ko ak lu mën a ñëw dañuy teg te te li ngay jàmbaar jàmbar jàmbaar tey jii bu ñu dajewoon ne woo woote ñu dem boo demee dañ naan bu ngeen demee nag coordonnateur yi war na man moom dama koy wax encore une fois coordination yow ci wàllu ci wàllu politique c'est ça amul amul agent non non man dama koy wax ci côté coordination moo gis nga coordination li ma koy bàyyi bàyyi bàyyi nee naa leen saa yu ngeen ma wooyee réunion damay ñëw dama xamal duñ ma woo réunion de eh, non est-ce que newul li ñu wax ne da nga démissionné buñ ma woo réunion buñ ma saa saa yu ngeen ma wooyee réunion damay ñëw def nañ démb sax ak boobu parce que démb woo nañ ma réunion ndax eh, affaire bi maa leen di sax ñaan loolu su mënee continuer continuer parce que bu kon ne dina jur jàmm parce que dëkk bi ñoo ko bokk te nag loo xamul solee mooy politique bi yàq na dëkk gis nga coordination bi ña ko lànkoon bari na ñi lànk nañ ko génn parti bi